gannaaw bu cour suprême rejeté demandam daanaka ay daal di génnee salle bi moom mi li mu jot a xamle mooy bile décision doonul lu ko bett du lu parce que ñun dañ ci doon was lu àq yoon moo demee noonu am ay procédure maître Abdoulaye Tine nekk njiital union social libérale jot a dugal benn recours ca cour suprême ngir nguur Sénégal suspendre lii di décision ministre de l'intérieur jëm ci mbiru parrainage yi gannaaw bu juge bi rejeté demande bi indiwul benn explication ci mbir mi loole nag nekk lu ko bett lool. mais au moins euh, am booy rejeté dara euh, la moindre des choses moom mooy nit bind na jébbal la booy rejeté nga ne yow juge nga ngay taxawal yoon mais nga wax yow fan nga ko wékk en droit et en fait mais yéen a ci yem maanaam dañoo rejeté jàll. ci beneen affaire bi nga xam ne moo ci topp. moom nag xamle na ni du bàyyi benn yoon dina wéyal xeex bi. danañ defaat beneen procédure ba nga xam ne dana euh, wañ loxo CEDEAO parce que CEDEAO ci boppam décision bi daf ko tënk nu mu tënkee Sénégal moom dafa war a abstenir jàppale tànk état bi nga xam ne day salfaañee décision communautaire. mbir mi nag mu ngi door ca avril 2022 gannaaw bu union libérale social daal di dugalee benn demande ngir ñu annuler lépp lu jëm ci parrainage yi loole nag. tey cour suprême daf ko daal di rejeté